خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيها الإخوة والأحباء أيها السادات والسيدات أصحاب مراكز القرآن والدارات جميع معلم القرآن الكريم أولياء طلاب الدارات أحييكم بتحية القرآنية وتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yi fi teew gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo wax ci alquranul ci suratul xijr inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun nun yàlla noo wàcc alquran te koy wattu aaya boobu nag buñ ko tuddee dañuy xam ne mooy shaaru mbooloo mi ñuy tudde aar daara ndax ñoo fas yéenee taxaw taxawaay boobu wuutu suñu borom insha allahu ci ndigalam fas yéenee taxaw ngir aar daara ñu ngi ñaanal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mucc ak xéewal yàlla dotte ku ci kawam ak ay saxaabaam ak ku xentu seen yoon wa ba keroog bis penc di taxaw yonent boobu alayhi salaatu wasalaam laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuuxa lu mu wax yàllaa ko ko wax loo te moo ni xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng téere borom bi subhanahu wa taala ba noppi wàññiku di ko jàngale kon jàpp nañ ni yéen ñii teew ci jumaa ji tey buñ doon tànn ñi gën ci réew mi kenn du leen fi weesu yéen ñi la ñuy tànn moo tax mbooloo mi nga xam ni moo tudd aar daara te képp koo xam ni ab sëriñ daara nga ñu woo la ci képp kuy parent d'élève ñu woo ci képp ku alxuraan ñor ci képp ku di jullit ñu woola ci ndax alxuraan kat daara jullit bu nekk defar na la loo xam ni bu ayee bu la wooloo war ngaa bàyyi lépp te dem buy jikko ndax li nga xam ni ab jullit mënu koo ñàkk bis bu jot alxuraan ak ko jox te mooy jullit bu mu mën di doon mënta ñàkk julli te boo dee julli alxuraan ngay tari wala sa julli du baax kon mbooloo moomu ñoo yëkkati seen kàddu di leen ziyaara yéen ahlul quran ñii fi teew di ahlullahi wa xaasatuhu waaye di ziyaara bu baax mboolem gan ñi nga xam ni ñu ngi jógee ci euh, bitti ñëw fekk si aar fii ci Kër Massar ngir ñu taxawal seen troisième conférence bi nga xam ni moom la ñuy def ngir li nga xam ne daf leen naqari ci réew mi naqari leen ci jabolise gi ñuy jabolise daara ngir ñu di ko dénoncé te loolu jàpp nañ ni ñëpp la war mbooloo moomu ñi ngi leen di sant di leen gërëm kàddu yi nga xam ni nag mbooloo mi dañ koy yëkkati li ci jiitu mooy ki jiite réew mi di di président Macky Sall moom lañ ci jiital ndax moom kat sénégalais yi ñoo ko tànn mu jiite leen kon la jaadu ci moom mooy li Sénégalais yi yittewoo bëgg ko mu taxaw ca taxawaay bu wér taxawaay bu mat sëkk te mbooloom aar daara gis nañu ni daara yi ñi ngi leen di buntu xataal daara yi ñi ngi leen di tëj ñi ngi jël ndongo yi di ko delloo ci yeneen dëkk ya ñu jóge woon te dara waralu ko lu dul bañ daara dara waralu ko lu dul bëgg tasaare daara kon aar daara mi ngi wax président ci Sall ni ko loolu ndawam yi koy def ndax loolu jàpp nañ ne ay dawam ñoo koy def ndax ndey Saly Diop Dieng moo ci jiitu ak ñi mu àndal kon na leen arrêté ñu téye loolu xam ne loolu bokkul ci li nga xam ni sénégalais yi d'accord na ci bokkul ci li nga xam ni ñiy jàngale alxuraan d'accord nañ ci kon loolu mooy point bi jëkk ci ni di ko wax président Macky Sall beneen bi ci topp mu jëm ci président ba tey mbooloo mi ñu ngi koy xam xamal ni ko moom mooy responsable ci bépp xew-xew boo xam ni xew na ci biir réew xew-xew bu nëbbu ak bu feeñ parce que moom la ñu wóolu dénk réew mi kon lu fi moo ko war a lijjanti lu fi xew moo ko war te gis nañ ni réew mi ay jafe mi ngi dund ay problème te daanaka kenn déggu kon loolu daara mi ngi koy xamal loolu di ko xamal ne ko nag li nga xam ni warloo na ko ak askan wi mi ngi koy def kon moom li mu warloo ak daara daf ko war a def daara ñëpp xam nañu ni sonalul état. xam nañu ni réew mii ñu nekk maanaam suñuy impôt mooy dundal réew mi ñi ci réew mi ci la ñuy dund école yi ñu fiy tabax ci suñuy école ci suñuy impôt lañ koy tabaxee maanaam professeurs yi ñu fiy fay ci suñuy impôt lañ leen di fayee euh, maanaam xale yi fi jàng ba am ay bourse ci suñuy impôt lañ leen di fayee te daara mu amu ci dara tabaxaluñu daara kër gu mu jàngalee fayuñu benn maître buy jàngale alquran fayuñu benn xale bu jàng ba àgg ci mu tafawwiqiina yi nga xam ni dafa am contre réewam ñu war koo neexal war koo dimbali ngir gunge ko ci njàngam loolu daara solol lu ci état te état deful ci daara dara kon loolu ba tey lu ñuy xamal la ki nga xam ni mooy ki nga xam ni moo jiite réew leneen li ci des gis nañu ni ñiy toj ay pënu ñiy taal ay pënu ak di sànni ay xeer ak di baari tali bi ak di yàq li nga xam ni société bépp ko moom ak di taal seen bopp daara bokkul ci daara bokkul ci loolu daara la ñu xam mooy ak njub di jubbanti nit ñi nit ku dëng boo demee ci daara ñu jubbanti la teg la ci siraatal mustaqim ba noppi ràng la ay makaarimul axlaaq ay jikko yu baax jikko yi nga xam ne moom la waa daara doon na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mooy makaarimul axlaaq kon loolu mooy njëriñal daara bu ñu ñëwee ci euh, ñetteelu point bi li nga xam ni dañ koy wax moom itamit di ko fàttali mbooleem ñi nga xam ni ñoo dëkk réew mi euh, di ko fàttali Macky Sall ba tey mooy daara dafa àgg ci li mu soxla tey fii ñu toll mooy ministère boo xam ni moom lañuy dënk dénk daara ministère conseil supérieur boo xam ni moom la ñuy dénk daara ak lépp lu aju ci daara daara loolu la soxla Ndeye Saly Diop Dieng mim ñu booleel daara dootu toogateeg moom daara dootu wax moom yëg nañu ni nag conseil ministre bii weesu moom joxe na signe yoo xam ne wax nañu nañ toog ak waa daara wax ak waa daara ndax président yëg na li xew waaye ñun ñoo soxlawul a wax ak ministère boobu puisque def na ak ñàkk teggin ci daara def ko yoo xam ne daara dootuñu ko fàtte ba ba àddina tukki ndax bu ñu xooloon ñoom li ñu mujj a déclaré wax nañ ni lu toll ci juróomi junni donga jëlee nañ leen ci mbedd mi juróom junni dongo yoo xam ni lan la ñuy def jàng téere borom bi subhaanahu wa taala seeni wayjur amuñu ay moyen yu ñu jàngee yuñ leen jàngale ñuy yalwaan di jàng te ku fi baax tey ñu di la tudd looloo la baaxal ñoom ñëpp ñu jël leen delloo leen ñii ñi ngi ci centre yi ñi ci des delloo nañ leen kon loolu tax na ba li ñuy sàkku ci moom mooy ministère boo xam ne moom la ñuy dénk daara maanaam mu di ko saytu ñeenteelu point bi mooy dañuy wax ci ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci politique te nekk ci réew ñun waa daara day gis nañu ni politiciens yi lépp lu xew ci réew mi ñu dégg ci seen kàddu duñu nopp lu guddi du ñu duñu nopp lu bëccëg organe de presse bu ne dinañ fa dem wax waaye jafe-jafe daara kenn mësu leen cee dégg kon loolu dañuy daal di tekki ni kon ñoom bu ñu jotee ci réew mi ñi fi nekk li ñu def loolu rek la ñuy def faale wuñu daara kon yéen ñii nga xam ne da ngeen di dagaan baatu réew mi di ko wut waa daara ñi ngi leen di xamal ni problème yi daara di dund dee leen ci addu solution bi daara war a dund da ngeen cee war a bokk fu fu aar daara wootee da ngeen war a dem wuy ji te xam ni Sénégal daaraa ko moom ndax am réew quatre-vingt-quinze cent euh, quatre-vingt-quinze pour cent mënuñu faa nekk doon ay jullit ñoom ñëpp téere yàlla bi subhaanahu wa taala ci la ñuy attewoo yow nga bëgg a dummóoyu téere boobu ñu koy jàng nga bëgg leen a def ay noon loolu mënta nekk kon ñu dikk ci cinquième bi nga xam ni mooy cinquième point bi loolu euh, ñi ngi wax euh, ñi nga xam ni ñooy kilifay diine yi nga xam ni tey fu ñu tuddee daara xel yépp dem ci ñoom ni ñoom day suñu maam yu baax yi fi jiitu woon ñun bu ñu jotee ci daara jot ci alxuraan xam nañu seen pas-pas la ak seenum liggéey bu rëy kon jàpp leen ni ñun dañoo bokk ci seenum njaboot seen njaboot gii nag ñi ngi ci coono bu rëy coono bu méttee méttee métti ci jabolise guñ leen di jabolise ak maanaam sonal guñ leen di sonal ak seen ndongo yi ñu yor di ko jàngal sonal guñ leen di sonal ak di leen jël di leen delloo ci seen wayjur ya kon loolu ñi ngi sàkku ñi nga xam ni ay kilifa lañ te fu ñu tuddee diine xel yépp dem ci ñoom te bu ñu àddoo maanaam ki jiite réew mi bàyyi leen xel ñi ngi sàkku ci ñoom ñu àddu ci xew-xew yi nga xam ni dafa xew ci réew mi te aju ci daal juróom-benneel bi mi ngi jëm ci gaa yi taxaw jàkkaarloog ñun muy journaliste yi bokki journaliste yi bàyyi leen xel ni ay jullit ngeen wala li ëpp ci yéen ay jullit ay jullit lañ te téere bii di alquranul karim téere la boo xam ne mënu leen koo ñàkk njéem ay jullit ngeen kon ñi koy jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni ñoo gën ci nit ñi te ñooñee saa bu ngeen déggee ci ñoom ak xibaar du ngeen ko leerlu fa mu gën a ñaawee gën a bone foofu ngeen koy waxe loolu bàyyi leen ko xel ci gënal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gënal suñu borom ci kaw suuf kooku dañ ko war a tagg waaye kenn waru koo xas kooka bu defee aw ñaawteef sax dañ ko war a nëbb waaye kenn waru koo jabalu si te gis nañ saa bu ab xibaar ki daara duñ ko leerlu te borom bi subhaanahu wa taala lam wax yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ab saay-saay bu dikkee ab xibaar na ngeen ko na ngeen ko leerlu ndax lu ko mooy di ngeen leeral di ngeen réeral ay nit ñoo xam ni seen xibaar yooyee tax ñu réer te seen réer googee wala kàddu yaay yu ñaaw yooyee ñu jël sànni ko daara ak ñooñ daara te mu jaare ci yéen am ngeen ci bàkkaar boo xam ni xamoo nu ngeen koy layu seen diggante seen borom te nag la borom bi subhaanahu wa taala waxoon mat naa bàyyi xel wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa nahsuruhu yawma alqiyamati ama téere borom bi subhaanahu wa taala képp ku ko woon ginnaaw dund gu ñagas dund gu metti boo xam ci xol bu tàng ngay dëkk te boo dee sawara nga jëm ndax lañ lay pang nga dem sawara kon loolu képp ku dib sénégalais képp ku dib journaliste war nga cee bàyyi xel kon yéen loolu mooy seen wàll ci li leen aar ñu ñëw ci juróom-ñaareelu point bi juróom-ñaareelu point bi nag dañuy waxat waa réew mi yépp sunu borom dafa wax ni baada aouzu billahi min asheytaani rajim fastamsik billasi uxiya ilayk innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusalun kon loolu mooy firndeel ni jëmm ju nekk am na responsabilité ci alquran te wa kullun aatihi yawma alqiyamati farda jëmm ju nekk boo dem jullit di nga suñu borom subhanahu wa taala mu audité la ci alquran ba xam noo def ak moom kon mbokk nañ jox daara ak xam nañ jàppale daara nañ jàpp daara ñu xam ni penc mii ñu nekk daaraa ko defaroon démb ba indil lu Cheikh Omar Foutiyou Tall ko defaroon démb ba indil ñu Cheikh Amar Khalifa daaraa ko defaroon démb ba indil ñu maam Alhaaji Malick daaraa ko defaroon defaroon démb ba indil ñu Cheikhul Khadim daaraa ko defaroon démb ba indil ñu Cheikhu Canaba daaraa ko defaroon démb ba indil ñu maam Imaamu Yoof ma ni kuñ fii tudd di la tuddal di la ñaanal nga nga am mbooloo mu topp sa gannaaw daaraa la defal loolu maam Abdoulaye Niass ca kaw la daaraa ko defar ba muy defaree kon daara moomu nañu bàyyi xel ni Sénégal gépp war nañ koo bàyyi xel xam ni moo defaroon penc mi démb moo koy defar tey mel na ni nag taxaw nañu ci tas daara taxaw nañu ci jaboli sa daara taxaw nañ ci daara dootuñu ko askanale askan wu baax ba parents d'élèves yi way jur yi nga xam ni ñoo daan jël seeni doom di ko yóbbu ci daara ñu ngi sikki sàkk fi mu toll nii te nañu bàyyi xel ni nit ki bi mu laataan gane jamono la yàlla noppi ci moom wërsëgam ak lépp bind na ko kon di topp sa wërsëg di topp àdduna ba fàtte sa borom subhaanahu wa dara jaru man baa a nuuran bi du jaafa sa yan dama kon oustaz nee na ñaari minute a des loolu mooy mujjantal bi kon ñu ngi del siwaat ci président di ko wax ni mbooloo mii di aar daara taxawaay bii ñu am moom lañu fas yéene continuer di ko am li fii mi ngi ñuy woo dalal ñu wax ñu lu leer nañ ñi lu ñu mën a jàpp ba noppi delloo daara gëdd gi ko gi mu yayoo li fii defu loolu dañuy continuer ci lii duñu ko bàyyi benn yoon tey tamit kim nu booleel fas yéene wu ñoo toog ak moom fas yéene wu ñoo toog ak kenn ku moom bu nu restauré nag ñu toog ak moom waxtaan ak moom wax ko li nu bëgg mu am pas-pas su taxaw ca incha allah ñu xam ni ñuy doxalee ak moom parents d'élèves yi ñi nga xam ni dañoo bëgg daara ñi nga xam ne ñooy waajur yi sëriñ daara ñi ngi leen di wax ni liste électorale yi na ñëpp dem bindu ji ah na ñëpp am ay dentité ah bindu ji téye seeni